ñaareelu audio aji Sarr ba nag far na mujj génn bi mu doon lim seize person yi nga xam ne bii ñoom ñoo doon séq ak ñoom boo leen toppee nag dinañ leen jox seize personnes yooyu ci làmmeñu Adji aji bi mu doon wax ak ki nga xam ne bii mooy Baye Mbaye Ebsi Niass dinañ leen jox lépp ngeen déglu ba xam aji saar ndax da doon nax ki nga xam bii mooy Baye Mbaye Ebsi Niass wala nag dafa bi ci kàmb gi waa déglu leen seize personnes yi. yaa yaa yaa yaa Farba ko yaa Mor Ngom. xam naa ko Farba Ngom xam naa leen. waaw yaa Ahmed Khalifa Niass. yaa Mambo Diaw 2. yaa Mambo Diaw on s'est donné numéro yaa Antoine Diome ministre des finances ADD. a, je ne ministre de la Finance, je ne sais pas, M. Diop, je ne sais pas. Il y a Pape Samba Diop, commandant Brimofaï, il y a Bougan Gaitani, il y a Maître Abdou euh, il y a Maître Abdou Djailani Khan, il Ali Ndiaye, Pape Samba.